mi ngi noonu ñëw seere oto président Ousmane Sonko se sont mis ce qu'ils veulent c'est bloquer le véhicule du président Ousmane Sonko seen diggante exceptionnel exceptionnel exceptionnel en ébullition le président Ousmane Sonko mi ngi noonu dugaan na bi mi ngi noonu bi dugaan waaw mi ngi noonu mi ngi la manœuvre sécuritaire le président Ousmane Sonko ñoo ngi progresser ñoo ngi avancer lii doxantu ku moom Ndakaaru ku moom Sénégal doxantu baa ngi noonu le président Ousmane Sonko xale yaa ngi noonu topp ko ndaw yaa ngi noonu biyo biyo mi ngi Sonko président Ousmane Sonko nit ñaa ngi ci terrasse yi président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko xaar yàlla en ébullition xaar yàlla en ébullition liesse populaire a ah, xaar yàlla président Ousmane Sonko ñoo ngi progresser ñoo ngi progressé ñoo ngi progressé Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi ngi noonu xale yaa ku nekk a ngi daw pour jox ko loxo ku nekk moo ngi daw pour jox ko loxo la main ngi ñëw adiya yaa ngi ñëw yaa ngi koy jox adiya ay 1000 francs ay 2000 ay 5000 oh là là là là oh là là là là ça fait chaud au cœur bi kontaan na askan bi kontaan na président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko askan bi kontaan na askan bi kontaan na askan bi gaa ngi joxe ñi ngi forcé ñi ngi buuxante pour jox ko adiya pour nuyu ko pour seere loxo bi yaakaaru askan baa ngi nii yaakaaru askan baa ngi nii président Ousmane Sonko may nañ ko montre montre may nañ ko montre adiya montre baa noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko exceptionnel exceptionnel xoolal ñu ngi koy jox yére ñu ngi koy jox yére koo ko jox montre bi koo ko jox montre bi ñu ngi koy jox yére ñu ngi koy jox yére ñu ngi président nee na nañu avancer président nee na nañu avancer président nee na nañu avancer président ngi noonu mi ngi noonu Sonko président Ousmane Sonko ñoo ngi xaar yàlla rond-point Cheikhou Kouyaté l'homme du peuple est mi ngi noonu président Ousmane Sonko nee na nañu gaaw président Ousmane Sonko nee na nañu ko may président Ousmane Sonko nee na nañu ko may la liesse populaire la liesse populaire mi ngi noonu le président Ousmane Sonko dañu ko may Kamine Kamine lañu ko may mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi dugaat mi ngi dugaat président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko exceptionnel ñoo ngi jàdd instant bi dañoo war a am chemin bu gaaw chemin bu am na embouteillage ba am na embouteillage ba